xam naa ne lu rafet moom mais une relation en cache un autre le président Abdoulaye Wade. Oh. c'est une autre relation et une très bonne relation tey jii nii est-ce que ngi déggante yaa koy woo qu'en est-il de votre relation. waaw euh, le président Abdoulaye Wade dama ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla muy wér ak wérle. amiin sàmm ko sàmm njabootam njabootu boppam ak njabootu boppam. bu njëkk bi mooy njaboot gi yàlla dogal mu meññi leen deuxième njaboot boppam mooy le Sénégal mu nekk nit ku baax ku defar ay nit ku ko wax ak ku ko waxul un homme que je respecte trop même mhm. c'est vrai que parfois jot amul mais waaja moom mag ja Youssou ne nit mën na laa jege te sori la mhm. nit mën na laa sori te jege la waaj a teg ca xale ba moom ndeer nee na li gën a jege bët bët du ko gis mooy xef mais je pense que góor gi moom ku am solo ci man la e ku am solo ci sama carrière la ça m'est arrivé une fois je suis allé le voir avant d'aller le voir dama am benn concours boo xam ni da ngay postuler chaque année xawma chaque deux ans. concours. bu am Womex Womex la tudd mi ngi am Newcastle. ok Angleterre. Mm -hmm. il y a plus de deux mille demandes. et je pense que six groupe la ñu jël xawma seize xamatuma mais li ñu jël daal bariwul plus de deux mille demandes. Mm -hmm. postulé naa pendant six ans musuñu cinq ans musuma jël ba sixième année ba ñu jël ma mais problème bi mooy. ñoom il t'offre un plateau en or c'est-à-dire fi les lay géloo yaay indi sa bopp yaay fay say musiciens yaay jënd say billet d'avion yaay loger say musiciens à l'hôtel yaa leen jox per diem aller retour mu nekk budget mhm. pour aller représenter le Sénégal je suis allé voir un ami Habib Mbaye qui était son conseil son conseiller à l'époque on m'a fait une lettre je suis allé le voir un vendredi soir ma dem seeti ko bind ko ko mu ko président Abdoulaye Wade ci table am vendredi je dois voyager lundi mu ko président Abdoulaye Wade ci table président Abdoulaye Wade ko samedi matin j'ai pas eu de réponse ma mhm. tiit ci ko lundi dimanche matin 7 heures du matin le président m'appelle allô man oui allô mun ma Alioune ça va man ko ça bien moi c'est le président na la way yàqu wala eh? di jóg ni <laughs> eh. président mes respects ma xam naa ne waaw defaraat toogaay defaraat ah, daal di waaw <laughs> daal ni ko président mes respects ma yaakaar nga ni xam naa yaakaar nga ni fàtte naa la mais yow kenn du la fàtte. c'est un monument. et tu dois aller représenter notre pays. Uh-huh. je t'ai mis en rapport avec mon chef de directeur de cabinet. Uh-huh. je n'ai pas cité son nom mais bon c'est pas grave c'est Souleymane Ndéné. ouais. il fallait le voir. Uh-huh. man ko ah oui man il faut représenter eh, bul ah, benn stress dama nga représenter le pays dignement et <laughs> règle problème bi. et puis je suis venu régler sama ay problème musicien bi mm-hmm. yëpp. dem dem remporter yi prix bi ñibbisiwaat. ñibbisiwaat. mais loolu téléphone la. Mm-hmm. maa ngi gërëm Abdoulaye Wade de mais yàlla dafa dogal aussi may gërëm son excellence de président monsieur Macky Sall. Mm-hmm. lu ma am teraanga ci Abdoulaye Wade ginnaaw yàlla moom moo tax xam nga lu tax. moo jàpp sama loxo bi yóbbu ma ci président Abdoulaye Wade présenté ma ko. def loo ma hymne pour leur campagne. Hmm. donc xam nga kon moom yàqu ci dara. Hmm. président maa lay gërëm. ci geste ba lan la teewoon waaw ma ne ko mat nga yow jiitu réew yow sa bilan bi doy na ma campagne. Uh-huh. président Abdoulaye am nga yow kóllëre am nga yow wóllëre da ngay jéggale di jëllale président Abdoulaye yaa gëm sa réew sigil der bu ñuul nangoo liggéey te doo ci tay démocratie garab bu ñu jëmbat la woon tey yow nga ñëw di ko suuxat ba mu meññ mhm. liberté d'opinion liberté de la presse liberté marche pacifique mhm. opposant c'est de bonne guerre mhm. waaw wax ko ko mën naa ko wax diri Wade Ndiack Fara Wade Ndiack yokk ma ci songum xeer bàyyi Karim. bàyyi itam fi nga koy mm. naa ko wax. parce que am na ñu koy def te dara bonu ci. waaw ñu ci am ci ñu ciy am. Mm-hmm. di ko yóbbu seen njaboot. Mm-hmm. mais ëpp naa loolu xamul tax. Mm-hmm. bëgguma Duudu sama doom wala Abdul Aziz. ëllëg ne ma papa wu tax nga way lii. maanaam ko c'est-à-dire non. Abdoulaye Wade je lui je lui avais fait du Sénégal. ni Sénégal et ses réalisations à l'époque. voilà tey nag nit ñi gis nañ ko. d' accord voilà. réalisation à ba tey fa la ñuy des bu Aliou Mbaye Nder par contre pas bu Abdoulaye Wade ñu ñëwaat ci yi nga xamante ne def nga ko New yi Montréal yi Paris ban nga gis ne moo gën a nekk réussite. hey ça va être compliqué ah. non pas compliqué loo gis rek koo gis rek am na loo xamante ne gënal na la war nga ci mën a am boo xam ne mooy sa coup de cœur. naa la ci wax ñaar c'est vrai que c'est compliqué mais naa la ci wax ñaar benn bi mu ngi tuddoon Roskilde. ok festival Roskilde. bu mm-hmm. doon am Danemark. man bi ma bokk ci ñi nu cité nii dama war def ci festival boobu dama tudd yàlla suñu borom xam ni moom rek mooy yàlla. ndax lan. dafa am ñaari ténor. Mhm. yoo xam ne dama doon rêve sama adduna nan lay def kenn ki bëgg naa ko ba feebar ki ci bëgg naa ko ba wopp ku njëkk Youssou la <laughs> ki ci des Michael Jackson. ñun ñeen ñëpp am nañ def sama carrière damay fecc naan tak tak suñuy bouton def nii Michael bu lamp bi sax mu ngay gestu yooyu la booy leer di def tax damay ñaan gars yi bu concert amatee wala soirée dimbali leen ma réalisateur yi wutal leen ma benn caméra kese bu mu toppatoo leen fexe leen rek bu jël grand boy ndeer mm. kese loolu moom dama leen ko secret la parce que gisaguma ko def anyway biñ ma waxee festival boobu dama ci war a joué. te ñooñu war ci joué. ma bokk ci gis programmation bi dama tudd yàlla. lan nga yëg. mbégte bu mag. te xam ne ndekete lu waay def waaw war na ci gën a góorgóorlu ndax fa mu lay yóbbu yow doo ko sax xam. dëgg la et fort pour moi. ci gën na ma fit. gën na ma gën na ma xamal ni ndekete sénégalais yi am na fuñ ma porté am na benn am na benn hormi boobu bari na sax macha allah xam nga am na boo xamante ni bii euh, xam nga ngay xalaat ay nit yoo xam da nga leen daan gis bi nekkee xaleel wala bi nga tàmbalee def musique di rêve mel ni ñoom ñu dem tey ba yàlla dogal nga bokk ci seen programmation ba pare ñoom ñu lay defal première partie yow yaa nekk te d'affiche c'est-à-dire bu affiche bi màggee yow la ñuy gën a valoriser ci affiche bi mm. teg la ci kanam teg la ci kanam. tey ñooñu nga daan nga xam ne yàlla mooy yàlla ak liggéey bu wóoru très important le Sénégal est un est un grand petit pays. grand petit pays. est un grand petit pays. il faut s'ouvrir il faut aller rencontrer d'autres gens il faut faire d'autres choses. Mm-hmm. il c'est-à-dire. quand on est musicien ouais, il faut s'ouvrir mhm. même si on n'est pas musicien. y en a eh, y en a quelques-uns ah, ñu xam ne affaire bi lii la mhm. boo ko xamee doo sonn mhm. lu mën a am ci sa àdduna il faut rester talentueux rester zen positiver